salaamaaleykum xarit yi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub yi mu tëral mu ngi santati yàlla ci li nu mën a teewaat fii di àddu ngeen di teewlu seen émission bi ngeen sopp di yoonu njub ci njàng mi weesu nu ngi doon waxtaan ci juróom lu ndigal li ne bul boom muy santaane boo xam ne mëneesul wax ne amul palaas ci sunu jamono jii ndaxte bir na ñépp ne bare na ñoñ faat bakkan ak naan ndox lañu yemale noonu gisoon nanu ne boom yemul rekk ci rey nit am na yeneen fànnay boom te ñu war cee bàyyi xel maanaam xaru santaane ñu reyal la nit yàq ab ëmb ak ñoom seen loolu lépp rey nit la nga bañ ko walla nga nangu ko noonu la fa kanam yàlla ci sunu njàngum tey mi nag dinanu gëstoondook yéen ci juróom ñaareelu ndigal li yàlla naan bul njaaloo njaaloo moo di xeetu moy yàlla gi góor walla jigéen ju nekk ci buumu sëy di jëflante keneen ku dul ki muy sëyal loolu nag suufeel sëy la te it li mu ëmb ci musiba bare na nanu jëkk a seet lu tax nu wax ne njaaloo suufeel sëy la gannaaw gi nuy soog a ñëw ci lenn ci musibay njaaloo kon danu wax ne njaaloo dafay suufeel sëy ndaxte mbind mu sell mi leer na nàññ ci ne sëy may la gu jóge ci yàlla aji sell ji looloo tax ñu war a sellal néegu sëy waaye itam ñu sellal ci bépp fànn ci sunu dund mbind mi nee na na ñépp fu laal sëy te lalu sëy bañ a taq sobe ndaxte yàlla dina àtte ñu yàquñu ak njaalookat yi aaye bi wone na bu leer ne li yàlla bëgg moo di kenn bañ a sofental sëy ndaxte sëy yàllaa ko fi samp lu jiitu sax baakaar di tàbbi ci àddina li yàlla bëgg wax na ko ci téere tawret bi muy nettali na sëy bu jëkk ba deme woon ak na way dencante yooya di aadama ak awa ànde woon mu ne yàlla aji sax ji ne wéet baaxul ci nit kon dinaa ko sàkkal ku mel ni moom di ko dimbale noonu yàlla aji sax ji nelaw loo aadama nelaw yu xóot te ba muy nelaw mu rocc genn ciy faaram fatt fa mu ko jële ak suux yàlla aji sax ji defar jigéen ca faar ga mu jële ci aadama indil ko ko aadama ne kii daal yax la ci sama yax di suux ci sama suux dees na ko tudde jigéen ndaxte ci góor lees ko jële looloo tax góor dina beru ndeyam ak baayam ànd ak jabaram ñu nekk kenn mbokk yi coobare yàlla moo doon aadama am benn soxna te yem ca te ba tey coobare yàlla soppikuwul yàlla dafa bëgg góor gu nekk yem ci soxnaam te bañ a am benn bëgg-bëgg bu bon ci jeneen jigéen jigéen itam naka noonu waaye li ñu seetlu ci àddina si doy na waar lool dafa mel ni daal sëy moom nit ñi dañu ko jàppe ni ay caaxaan rekk nit day nekk ci buum ba noppi di doxale nu ko neexe maanaam fukk ko bakkanam jañ rek mu jëm fa ku ay gëtam tegu mu neex ko dara dootul nekk yitteem lu dul fexe àgg ci moom dina dem sax ba mu jaral ko tàggook soxnaam ngir rekk am kookee waaye bu ci duggee ab diir gannaaw gi mu gis keneen ku foqat ay gëtam mu tàbbeeti ca wàcc ki mu àndal am na ñooñ sax duñu far jaar ci sëy dañuy nekk noonu rekk kenn ki dëkkali morom mi ñu dëkk ci njaaloo mel ni ay njaa àll moona yàlla santul loolu kenn kuy nit moo tax muy lu araam fa kanam yàlla dëgg de su ko nëpp nëppal yàlla dëgg gi nekk ci xol la bëgg kon nanu fàttaliku ne njaaloo yamul rekk ci jote keneen ku dul sa soxna walla ku wuuteeg sa jëkkër njaaloo yamul ci li ngay def ak sa cër yaram waaye dafa ëmb it li nekk ci biir xol yeek xel yi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 taseeg nit xool ko am ci moom yéeneb joteeg moom ndax mën nga wàññi ñaata yoon la la dal ñenn ñi sax dinañu ko génne ci seen gémmiñ ñeneen ñi duñu ko wax waaye fekk na seen xel ma nga ca ndax wolof njaay danaan xel su ko téye waaye xamal ne kàddug yàlla wax na ne saa soo defee loolu bàkkaar nga mel na ni njaaloo nga ak nit kooka saa soo mëse xemmem jigéen walla góor baakaar nga ci sam xel te sax xemmeem googu mën na laa yóbbu ci njaaloo ak nit kooke xam naa yaa ngi naan ah su dee loolu kon ana kan mu mën a mucc wax nga dëgg mucc ci jamono ji lu jafe lool la rawatina booy dox ci mbedd yi ak col gu doy waar geeg jëf yu kenn rafetlawul yi boo séenee loo warula xool ci wet gi ba tax nga dumooyu xool wet gale dinga fa fekk lu yées la nga doon bañ say gët tegu ca wante su yàlla feesee xol yeeg xel yi pexem seytaane dina coy waaw yombul ndaxte boo koy seet ba ci biir dafa mel ni nit ñey jàppale seytaane kon yow mi bëggul a fenku ci pakki seytaane xamal ne li gën a am solo mooy li fees sa xol ak sa xel ci lu wér njaaloo baaxul dafay suufeel sëy te sëy nekk na lu tedd lu kenn warula ñàkkal fula ndax yàlla nu ko jagle kon wareefu nit moo doon rafetal sëy sellal ko ndax yàlla barkeel ko waaye bu njaaloo gu tëw dakk tàbbee cib sëy melokaanu sëy day daldi safaanoog coobare yàlla bu ngeen ko seetloo nag xarit yi ñuy déglu dingeen gis ne li ëpp ci nit ñi joxuñu sëy gëdd ba ca war moo na leer na ne njaaloo ak lépp lu xeetook moom day suufeel sëy te yamul rekk ci suufeel ko dafa ëmb itam musiba yu bare lenn ci musiba yi njaaloo mën a jur moo di yow miy njaaloo dangay ñàkkal sa bopp fula ñàkkal fula it sa way dencante ci kanamu doom aadama yi ba tax na bu mbir mi dakkul sax dina dem ba kenn dootul wekk sa way dencante yow moom waxi noppi te it ci misaal njaaloo gu law gi tëw a tax na ay way dencante yu wóoloonte woon di moytonte ci gox yu bare ci àddina njaaloo xëtt na fa ay njaboot tas fa ay kër yu bare tàbbal na naqar tiis ak toroxte ci xoli gune yu bare ba seen àddina yàqu yaxeet lenn ci xale yi ñuy tudde guney mbedd yi ñu ngi bawoo ci njaboot yu xëtt yi te njaboot yu xëtt yooyu lu ci bare mbiri njaaloo bokk na ci li leen xët noonu gune yi daldi ñàkk kilifa tàbbi ci mbedd yi muy seen kër li nuy wax ci gune yi lu am la ñépp ko seetlu foo jëm ci mbedd yi gis leen ñuy taxawaalu jël nit ñi ak di leen fitnaal bëccëgu ndara kàmm lañu lay tafu mbaa sax ñu foqatil sa alal ne mes wante xale yooyu ana lan lañu def ñoom ba war yeyoo dund gu ni yéese ñoom defuñu dara waajur yi kay ñooy ndeyu mbill yi ndaxte bu ñu fëlxoo kay gune yi dinañu tasaaroo bu macaam demee lu fa upp yey defate waaye ndegam nit ñi bañ nañoo fale yàlla bay jëfe ci seeni cër ni mu leen soobe dinañu jot seen payug jëf te pay googu yemul rekk ci njaboot gu xët tasaaroo wante dem na ba ci ñuy tàbbi ci mbugalu àddina fekk gog laaxira gi jaas moom ak seegul sax maanaam ci seen njaaloo googu mën nañu ca jële ay wopp yu bon moo waral mbind mi naan bu leen ci dara nax kenn du fontoo yàlla ndaxte lu waay ji moom ngay góob waaw boo xamee ni nit ki sax na ci dund na mu bon te bañ koo dëddu wëlbatiku ci jenn yàlla ji dund kepp li wér mooy yàlla dina ko bërgal ci bëgg-bëggam yu ruslu te di ko xaare bésub àtte ba aji jub ji bugal ci safara ku bañ a te nangu yoonu njub mu tëral ci taalibe yeesu yi nag kàddug yàlla dafa nu wax naan lii nag mooy coobarek yàlla ngeen sell maanaam ngeen moytu njaaloo ngeen noot seeni cër ci cell ak tedd te xemmem bañ leen a jiital ni xeeti àddina yi xamul yàlla bu kenn ci yéen laal yëfi jàmbur ngir bañ koo tooñ ndaxte waxoon nanu leen bu yàgg te artu leen ne ñiy def loolu boroom bi dina leen mbugal ndaxte yàlla woo nanu nu dund ci cell waaye du ci sobe ku tànqam lu wax ji nag defoo ko nit yàlla nga ko def kon yow mi déglu te bëgg a dëddu sa dundin wi dëppoowul ak ni yàlla bëgg xamal ne saafaras njaaloo sorewul waaw ndaxte mbind mi dafa ne nag kenn ku nekk bëgg ki muy sëyal mën na am yaa ngi naan a ah, man kay bëgg naa ki may sëyal waaye terewul ma mel ni ma mel kon su fekkee loolu mooy sa xalaat xamal ne mbëggeel gi yàlla bëgg mu nekk ci yow jëm ci ki ngay sëyal des na ndaxte googu mbëggeel soo ko ko bëggee dootoo ko mën a def daaralu ñaaw waaw ndaxte bu boobaa dinga bëgg sa soxna mbaa sa boroom kër ni nga bëgge sa bopp bir na ñépp ne ku ànd ak sagoom du def boppam lu ñaaw lu metti walla lu bon noonu nga dul defe sa bopp safaan nag ni nga dootul mën a defe lu ni mel ki ngay sëyal loolu moo di bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ci loolu nag mbind mi nee na bu leen ameel kenn dara lu dul mbëggeel ndax ku bëgg sa moroom wàccoo nga ak yoonu muusa ndaxte ndigali yàlla yépp yi deme ni bul njaaloo bul rey nit bul sàcc bul bëgge walla leneen ndigal lu mu mën a doon wax ji moo leen ëmb maanaam na nga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp ku bëgg sa moroom doo ko tooñ kon ku wey ci mbëggeel matal nga yoonu Musaa bëgg sunu moroom walla bëgg ki nu sëyal ni nu bëgge sunu bopp lu jafe lool la ci sunu doolee bopp dunu ko mën a matal mukk wante yàlla am na pexem soppinu may nu doole ba mbëggeelam gu rëy gi mën a baawaan ci sunuy xol waaw yàlla dafa bëgg soppi sunuy xol yu siis yi noot leen ak mbëggeelam gu rëy gi lan mooy pexem yàlla moomu nag mooy lii ci bu jëkk faawu nga nangu ne yàlla aji sell la ju kenn mënula jege ci ñàkk sell gannaaw gi nga nangu ne baakaarkat nga te du yow kese waaye ñépp a ni ko mbind mi waxe ñépp jeng nañu ba kenn amalatul yàlla njariñ kenn du def lu baax du kenn sax bu loolu leeree ci sa bopp nga gis léegi ne pexe mi ci yàlla aji sell ji rekk la mën a jóge te pexe moo moo di deewu yéesu Kirist ca bant ba mbind mi nee na jenn yàlla kepp moo am ak benn ramukat kepp diggante yàlla ak nit ñi di kirist yeesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp te gannaaw kirist yeesu dee na ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara noonu ngir yàlla baal la te boole la ci ñi muy may xol ak xel mu bees faw nga gëm li yàlla seede ci mbirum deretu yéesu ji tuuru ngir raxas la ci bépp bàkkaar gëm ko rekk moo lay boole ci ñi yàlla àtte jub ndaxte jub fa kanam yàlla gëm yéesu Kirist rekk a koy maye kon soo gëmee bokk nga ci kon pexem yàlla ngir nga nekk nit ku bëgg ki muy sëyal ni nga bëgge sa bopp mooy nga gëm muccuk yàlla gi nekk ci Kirist noonu yàlla moo lay may xol bu bees boo mën di defe coobareem loole di tekk rekk ne xoolu bàkkaarkat bi nu donne ci maam aadama du nu ci mën a def mukk coobare yàlla faawu xol bi soppeku te amul leneen lu ko mën a soppi lu dul gëm yeesu kirist mi tuur deretam ngir fayal na sunu boru bàkkaar mooy saafara si du leneen naka noonu mbind mi nee na bu nit bokkee ci kirist mbindeef mu bees la li jëkk wey na lu bees a fi teew ndaxte kirist mi mësula def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën a doon njubteg yàlla kon xarit yi ñuy déglu fii lanu leen di tàggoo ba ci njàng mi ñëw ndegam neex na yàlla dinanu gëstandoog yéen ci juróom ñetteelu ndigal nu ngi leen di gërëm ci déglu bi te di leen fàttali ne mën ngeen nu yónnee seeni laaj ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mbind mi wax ne bul njaaloo bu leen ci dara nax kenn du fontoo yàlla ndaxte lu waay ji moom ngay góob